mu am nag ndaje mu am solo moo xam ni tey jii moom lañ fi amal loolu mooy lan ku ne xam na ni lépp li jafe ci barab yëpp yombe na ci barabub sëriñ Touba bii di dëkkub Seexul xaddim bi ndax dëkkam bii la waxoon ni sunu borom nag ko aaral waaye lépp loo xamante ni bii lu ñuy jëfandikoo la te doomu aadama di ko jëfandikoo tam dëppoo lislaam nag ko sunu borom ñoddil ba mu ñëw ci dëkk bi looloo waral ba tey jii am benn hôpital boo xam ni hôpital la bu jafe-jafe-jafe fii ci réew mi di Sénégal waaye yombe na fii ci Touba Mbacké loolu nag amee ci baaxub Serigne Touba ñuy ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mouride mu yàgg fi te wér ndax bi ñu nga xamee ni ñi ngi taxawal hôpital boobu muy hôpital boo xam ne day fàcc jalis jalis nag suñ ko waxee mooy feebar boobu nga xam ne mooy feebalu rein mu nekk lu jafe-jafe lool waaye bi ñu ko taxawalee Moustapha Diakhaté mi nga xamee ni mooy président initiative bi nekk itam euh, coordonnateur bi nekk ki nga xamee ni itam lëkkaloo na ak ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar au niveau national ak ñi nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp taxa taxawal fii ci janatul mahwa loolu nag sëriñ mu Mountakha daf cee joxe ay ñaan yëkkati trent million tàmbale ko ci waaye njabootu sëriñ Tuubaa gi ñoom ñëpp itam ay participation yoo xam ne def nañ ko fi jamono yi ñuy wax ak yéen kilifa yu bari agsi nañu toog ci jataay bi fas yéene tàmbale li nga xam ne moom mooy programme bi. wéradi mbokk yi képp koo xam ne yàlla may na la tawféex yi nga sab sablal fuddu dem saw yoon xéewal gi la yàlla may xamoo ko bala koo xam mu gaar la wéré di gaar la moo tax sëriñ Serigne Touba radiyallahu daana wax ne yitte bu dee ñaar wér daa am Serigne Touba nee na bu dee ñaar wér daa am nit ki boo nekk loo soxla mu naan nangam ak nangam daa fekk mu wér rek waaye bu wér moom boo nekk loo soxla wér kepp lay wax moo tax mu ne yitte bu dee ñaar wér daa am moo tax ba muy ñaan mu naan washfi jamia al muslimina ajila tumma qihim xawfan wa xusnan ajila ñetti mbir ngi foofu seen nga nit ku wéradi faaw alxawf xos xosnu nekk ci moom ku góor góorlu ba taxawee ci yooyu rawat na jalis bii ndax nit koo xam ne daraa ngi sa poos sax naam man ngaa fay attan nga hôpital bi xëy na attanoo waaye attan nga ba bi amoon ay place attan nga ko waaye fan lay fajoo am ma place kooku njàqare li nekk ci moom tiitaange li nekk ci moom ca du yem ci moom waaye ay bokkam ay xaritam mboolem ku ko xam rek yëg-yëg boobu lañuy am diggante ak moom mooy amuñu fuñ fajoo kon kooku bu yàlla dogalee ñu taxaw taxawaay boo xam ne bu ko yàlla sottalee dana saafara lu bari ca loola kon kooku yëg-yëgu bépp jullit bu nekk lang ca mane war ko ca taxawee man-man yi nag wuute na ku nekk am na loo man kilifa diine gi am na kilifa diine yoo xam ne bu ñu ñëwoon fii tey baas fee ab baas ne bala ma fee jugee fi laay yenn bés bu set bala ma fee jugee lu tabax centre bi dama fee fekk diir bu gàtt ay taalibe yu bari rañaane France rañaane fu nekk ñëw fekk ko fi lu ko tabax fekk ko fi dañ naan sëñ ba du yendu ca mbaar ma sëñ ba du yendu ca naajo donte ab dërëm mën na a dem waaye am na kaddu gu ko yàlla jox mu jële ko Cheikh Khadim radiyallahu anhu goo xam ne bu ko yëkkatee ñooñu dañuy daal di riir fekk ko fa fasaas kilifa googu nag xam ne loolu laa ko ci war taskati xabaar yi tasaare ko ba ku ci war ci jot ku ci war a jot jot si loolaa leen ci war ku yàlla dénk dara fasaase la nga man mooy daal di taxaw ci jaayante génn sa alal def ca ku yàlla dénk nga mën a taane noonu waaye bu kenn xeeb yow mason bi bul yaakaar ne amoo xaalis amoo alal ah kay am nga alal alal ji mooy lan mooy bu ñu tabax centre bi danaa fa joxe sama fukki fan yoo xam ne gratuitement lay doon danaa fa joxe sama ñaari fan yoo xam ne gratuitement lay doon yow mi nga xam ne yaa yor camion benn bi danaa fa séene bu ñu tàmbalee tabax nangami charge danaa ko fa joxe ñi yor camion benn ci Touba bu ku nekk woon naa joxe nangami charge suuf du suuf ñi jaay ciment bu ku nekk ne woon naa joxe nangami tonne sa ciment dootu yittewoo ciment ñi jaay fer bu ku nekk ne woon naa joxe nangami bërigo wala nangami tonne dootu yittewoo noonu ni jaay xeer noonu kon buñ ko sotee song ko ni ñu ko war a songee tabax bi mën naa bañ taxaw carreleur ba di xaar loolu électricien ba di xaar loolu plombier ba di xaar loolu ku nekk ci ñoom gëm ne am na fan yoo mën a joxe li fi ay maçon li fi ay plombier li fi bu jaayantee ci centre bi centre bi du fay dara ci wàllu main d'œuvre kon nak lolu mo war nek taxaway ku rek ku rek la nga ci wara taxaw nanga taxaw ci xamne lu ci way def sa bop nga ko defal man amila salihan fali nafsi te képp ko xeet li sa bokum julit mu nek ci yitte yonente bi sallallahu alaihi wasallam nak bo nag say aajo di gaaw faju fexel ba sa yitte yi mbokkum julit nga di ca taxaw te yitte mënut a gën a ci nit ki nit ki wéra di bëgg faju yalla yalla defal tawfiq ñu ngi jégalu ci taddi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu ah, jërëjëf sëriñ Mouhamadoul Basir ginnaaw bu ñu la nuyoo ba dafa am tombo yo fekkoon ñu tambaliko danañ ko baamtuwaat ngir nga teewe ko dama wax ne yoonu murit am na juróom benni kuréel yu fi nekk yoo xam ne ñeent ñi de amal nañ njariñ yoon bi waaye ñaar ñi dañuy yàqal yoon bi ma bëgg ko leeral benn par benn ñeent yu jëkk yi mooy borom xam-xam yi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam ci yoon wi ak xam-xam bu mën di doon te diine ci soxla ko yoon wi soxla ko bi ci topp mooy borom xel yu rafet yi nga xam ne buñ ko soxlaa mën nañ caa xelli lu amal njariñ jullit ñi loolu yoon wi am na ko bi ko ñetteel mooy borom alal yi ñi nga xam ne seen alal lew na leen doom te mën cee liggéeyal lislaam yoonu murit soxla ko am na ci biir yoon bi bi ko ñeenteel mooy ki nga xam ne doole yaramam la yor xam-xamam amu ca lu ko doy xel ma am na lu ca des xëy na alal ji noonu waaye nag doole yaramam am na ko ba doy sëkk te ci misaal tey buñ gaare woon fii ab camion matériel ne ci ba fees buñ nee sëriñ bi nee na nañ ko wàcce léegi ci minute yu néew ñooñu daa koy song wàcce ko tegale ko fi suuf te xëy na buñ leen laajoon alal duñ am kàttanu joxe ko buñ leen laajoon xam-xam duñ ko mën a joxe bu dee xel mu rafet duñ ca sori kon kenn ku nekk am nga loo man ñooñu nag sëriñ bi am na leen ba noppi waaw kon nag laaj bi may laaj foofu ci jeexal mooy ñeenti ñee yoon wi soxla diine ci soxla leen ñu amal Serigne Touba njariñ lool ak askan wi ana lan loo moo ñu groupé leen joxoñ leen fi barab tracé leen yoon ñu mën a jaar ngir ñu jariñ yoon weeg diine ji waaw ñaar ñii nga xam ne ñaari kuréel lañ yoo xam ne dañuy yàqal diine ji yoon wi ana lan moote tee ñu seppi leen teg leen fële loolu bu ñu ko deful fii lañuy ñuy toog résultat bu egg lu fi mën a am te lii ñuy tàmbali nañu moytu ndax am na lu ne ci seen wet am na résultat bu mu joxe muy hôpital Matlaboul Fawzayni ay taalibe ko liggéeyoon état bi defu ci dara taalibe àndandoo woon liggéey ko ba mu sotti nun yëg nañ ne bu yeexaatoon un an wala deux ans yuñ ko joxewul kon liggéey bi du egg nun 2006 la ñu sëñ Saliou woowoon ñu di leen jubale en tant que ay taalibe yu bokk Serigne Touba ñu war a xam ne yéeneente jàmm waroon a nekk ci seen biir ñuy xiiroo ba Serigne Saliou tali ci woo ñu man mi ci jiite woon délégation ba laa bokk mu ne ñii kat dama cee jéem lu bari mu xaw maa të ngeen di sama njaboot ma bëgg yoon bañ cee amu yoon te ngeen lijjantil ma leen. loolu année 2006 la fekk na hôpital bii pare ne kon du egg gis ngeen résultat ba tey fa mu mujj ñooñu ñëpp tàqalikoo nañu kenn ku nekk mënatoo cee tabax sax ab mbànd mu egg. loola kon na ngeen moytu mu dal leen fii sëriñ Abdou Lahad nee woon na yoonu sëriñ Touba lépp loo koy tudd loo ca tàmbali mu daal di egg xamal ne sëriñ Touba nangu na ko. waaye loo ca tàmbali mu tëla ticc xamal ne sëriñ bi àndu ci sa pexey bopp la wasalaamaaleykum wa rahmatullah jataay bi dafa mel ne sëriñ bi doon wax léegi wax ne moo toppi wala moo jiite assez wax na loo xam ne lu am solo la moo di dañuy wax ne fegoo benn dërëm moo gën fajoo téeméeri dërëm kon xamal nit ñi jàngoro ji mooy lan ak jàngoro ji lu ñu yaakaar ne moo koy joxe su ko defee nit ki man koo moytu bu yàlla nattoo jaam bi nag ba nga xam ne loolu ñëw na su boobaa nag lii door am njëriñ ci nit ki kon xam jàngoro ji xam li koy joxe xam niñ koy fegoor loolu itam lu ci am solo la lii sukkandiku ci li sëriñ Modou Lo wax léegi Serigne Touba amna lepp Serigne Touba dafa waxoon yeen wa Madina am ngeen xewul gu tollu ne di yewwoo ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kay ku yewwoo ci wetu khadimu rasul war nga dello njukal serigne bi bor boobule fustum bi kawni ibn abdullah jarakum wa kawnikum nikum xawlahu fal tahmadu samada rik yeen wa madina na ngeen di sante yalla seen borom ndax li ngeen dekk ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañu sante yalla sunu borom ci dekk ak serigne Touba. lii nga xam ne nag moom la dëkk bi yàlloo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg képp koo xam ne kii jàpp nga ne yow soo defee mu baax jàppal képp koo xam ne jàpp nga ne soo bàyyee mu bon téyel waaye du tere sëriñ boobu li mu bëgg dana ko am ndax da gis fukk yoo xam ne ñoo mën téeméer gis téeméer yoo xam ne ñu mën junni te ñu ngi ci biir mbooloo mi waaye li doon gën a rafet nag te gën a baax mooy képp koo xam ne kii da ngay tuddoo sëriñ bi ak foo mën a nekk yoo xam bi biir Tuubaa nga nekk ak feneen foo mën a nekk lépp lu ñu yëkkati ne sëriñ bi soxla na ko ci dëkk bi wala njabootu sëriñ bi ñoo ko soxla dem ba ci sëriñ bi mu jox leen ci ndigal ñëpp ànd ca loolee waaye nañu moytu li nga xam ne moom la sëriñ Modou Lo daaneele léegi mooy lépp loo xam ne nit a ngi koy yëkkati te xam ne sellaloo ko sa digganteeg sëriñ bi faw xal seen nga koo rëccu ndax sëriñ bi kenn mënu koo nax yàlla kenn mënu koo nax kon li ñuy def na nekk loo xam ne lu doon dëgg ci noonu lay doon te mu nekk loo xam ne lii itam man de Touba ca kanam bi ñu ñëwee di ma ko ñaari at laa daggu benn yoon ci Darou Mouhty yaakaar ñaari at yi jeexagut leneen noonu leneen noonu kenn ku nekk na jàpp ne li ngay def boo ko defee mu baax ne soo téyee sa sa loxo mu yàqu nañu xool nag sëriñ bi ba xam ndax may bi ko suñu borom may da koy nangu wala day dellu ginnaaw ku ko yaakaar ku nekk nax nga sa bopp sëriñ Touba moom mbiram kanam rek lay jëm kenn mënu ci dara ku woon ne bu fi njabootu Serigne Touba jógee ñi ñu tudd di tudd ay doomam mbir mi du mel nii kookee njortam war na ko. mbirum Serigne bi moom li fekk ku ñu tudd Serigne Touba di ko tudd mi ngi fi nañu gëm ne rek su fekkee ne li war a nekk ci nun nekk na ci nun mbir mi kanam lay jëm waaye du dalu ginnaaw. te it kenn ku ci nekk la lay sikkal yaa koy defal sa bopp waaye lay lore moom yaa koy defal sa bopp sëriñ bi moom yàlla defalal na ko ba noppi. yi nga xam ne te mënoon moo fee wutuwaatee ci jataay bi te wax fi kàddu yoo xam ne gerte dellusiwaat ndax li ma waroon wax samay wax tàbbi na ci seen biir kon cant ak ngërëm rek lay def muy Serigne Mouhamadou Lo Gabou ak Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khoudous ak Serigne Ahmadou Rafa yi mi dem waaye kàddu yi ñu wax ku ko dégg te xam leen ñoom da nga xam ne kàddu yi dëgg la dëgg nag genn rekk la. ñaari dëgg amul ñetti dëgg amul genn dëgg amul li war a fi daa wax naan yaa sa dëgg maag sama dëgg ak dëgg waaye ne li am solo mooy dëgg suñu borom li ñu wax nag wax ju dëggu kon li am solo rek mooy ñu fexe ba dégg ko te topp ko te fexe ba wattandiku ci liggéey bi kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa hôpital Matlaboul Fawzayni di sant kuréel yi nga xam ne itam ñoo taxawal li ci njiitalu sëriñ Moustapha Diakhaté ak mboolem ñu ngi ko àndal ndax jaamu yàlla kat li Cheikh Mahamadou Fari daa wax jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon lii képp ku koy def fu ne li ngay ñekk ñaan mooy yàlla nañ suñu borom musal ndax jàngoro ju diis la ju metti waaye nag yàlla moom moo xam li muy tegu jàmm te am na fo Sëriñ Tuubaa wax ne is is laysa ma maasuman min al marad واشتكي اليه ما من الضرر قد مسني حتى اراني محتضر لول نيب خمنا اسوار بي سيري بي دي تالي قصيده مدو وشيفاي دي جام سوخنا ما فاتي سي جوب وجور سي ابراهيم فاتي كون لولو سيرين سون باستا ديكي موي واخ سي جامورو ييغا خمنا نيغي دور ليغي اوبيتال لوكي بام اغا دا واخ ني ماغني دنج دا ييم رافتاي اوبيتال mu ne waaye li ci doyen kéemaan mooy ku ko mës a yëm ku ne rek tàbbi na ci kon nag ñun yar nañ ceen mosul ñi def nag te ko defal bindee fi mu jëm ci njaboot gi taalibe yi ak jullit yi yàlla suñu borom nongul leen di gërëm it sëriñ Maysa Touré nii ci pëstéefam ak taxawaayam ndax bi nga xamee ne soxla ñeen pàkk bi ñëw ci wax ko mën naa ne li ko yàggal sax xëy na ci man ñii la ndax xatali jamono mu waxoon ne fay nañ ko ci lu bari da ko bëggoon a defar waaye jaayante na ko jëm ngir jëm Serigne Touba comme xam ne ne Serigne Touba ko soxla du ci laaj benn dërëm def na ko ak Serigne Touba ne ma kon damaa bëgg ñu ànd ma ma jëbbal ko bu ko defee mu jëbbalaat ko waa hôpital mooy di indi woon bi ba yàlla mu def ko Cheikh Maodo Mountakha liggéey loolu ci yéen kon nag ñu ngi sant di leen gërëm di ñaan liggéey bii nga xam ne tàmbali ngeen ko te muy liggéey boo xam ne képp ku xam ku ne loo ci man dama ko ci def ndax xam ne ci dimbale bindee yi la bokk te suñu borom wax ne eh, ku yërëm ñi ci kaw suuf yàlla dana la yërëm te yërëm nit ñi nag bokk na ci jàngoro joo xam ne wóor na suñu borom te tegub jaam te te jombut kenn ñu fexe ba jàngoro joojee yàlla eh, woyofal ko ci ñoom. amiin. amin ya rabbal alamin amin amin ñu ngi sant soxna yi yëpp ci hôpital mag bi nga xamné ci si ni ñu ko fassiyene yéene fi fii xeer wi di lépp feebar bo xam ci moy jëm ci walu jeles waye nak mu doon liggey bo xam ci tamit ki ci njëkk duggal loxom nak dal na xel muy Serigne Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yag loolu te 30 millions la jël yëkkati ko jox ko talibé Serigne Touba yi jox ko wa hôpital bi ngir lan ñu tambal ci liggey bi Serigne Touba bi waye cérémonie bi tamit talibé Serigne Touba yi fenn fu ci nekk tamit jóge nañ fa ñëw fi nga xamné ci si moy ci hôpital bi ku melni Serigne Bassirou Mbacké Abdoul khader Dakar teewal fi Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ne moom la ñu xoolee maam Thierno Ibrahim Ndaamal Daaru Musti waaye daal yaakaar naa daal taalibe Serigne Touba ni ko Serigne Bass Abdoul Khadir waxe léegi ndax doom sax mën nga ko fee bàyyi mu di la ñaanal yaakaar naa doom joodee bu demee ba wàcc ab liggéey kon dootoo amati la ñaanal waxi Serigne Bass joojee mat naa jàngate bu baax a baax a waaye li doy waar mooy nga tabax hôpital wala nga bënub teen wala nga defar a nekk a jariñu képp ku ko déggul na ko jot na ko jottali moromam fii daal njambum daakaande la weñ wu nekk nag noo ci sóobe noonu nga cay taqee sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téyër sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téyër wasalaamaaleykum wa